ñoom waaye nag bu ñu dëgmalee campagne wala dem ci ay jongante su boobaa nag moom président Ousmane Sonko mi nga xam ne mooy tête de liste quoi euh, suñu euh, liste bii di Pastef les patriotes mu jiite ko nekk ca bopp boo ñu war a dem élection war a dem campagne mu war a wër Sénégal gépp léegi nag am na jot ndax pare na ci programme bi mu waroon a def muy référentiel projet bi pare na ci lëmbat gi ñu doon lëmbat réew mi ci yàqu-yàqute yi ci wàllu finance publique bi ci àll ji ñu sàcc rek projet yi programme yi yëpp li ci ëpp tënk nañ ko ba xam li mu doon ba xam yàqu-yàqu yi am na lu mu ci génne am na lu mu génneegul kon Ousmane actuellement am na tuuti jot féex na féex a dina ngir mën a maintenant jublu ci parti bi jublu ci militants yeeg sympathisants yi jublu ci programme campagne bi jublu ci législative yi ngir ñu mën a am ndam ndax ndam loolu waxoon naa ko de. man koy répété diko ko projet bi limi for yëpp cotisation yeeg mobilisation beeg coow manam popularité beeg lepp buñ ci mënta am limu député bu doy ngir mëna a soppi réew mi ci ay loi lepp da fay doxé fofu tabbi geej am nañu doolé am nañu mbolo and nañu waaye loolu lepp bu mu tax kenn ci yeen naagu képp ku ma woon dama non élection dañ koy gañe dama naan déet gañaguñu ko li gën a tax ma woote live bi loolu ci la bokk gën leen a ñaax ci ngeen yokk seen ñeex ci cere ji yokk ñeex ci cere ji toog naagu naan woy am nañu doole ñoo man di maanaam naw sa bopp ba ba teelaa waaxu te naw sa bopp ba teelaa waaxu mbonaat dana dem ba baraw la ci course nañu bañ a naagu bu ñu sous-estimer suñu noon bu ñuy jëkkati suñu bopp teg foo xam ne jàpp na sotti na sotti na sotteegul nañ rafet njort na daañu am ndam waaye rafet njort gi bu ñu ko teg ci toog na yàcc na yasar lu leer laa leen wax on est en politique bokkuma ci ñuy tëdd naan ah, ñun de gañe nañu Sonko bu génne gañe nañu ba noppi Dakar mokk na fi mokk na bokkuma ci ñooñu leer laa leen wax li tax bokkuma ci ñooñu moy dama ko dul tek ci ay passion ki ay sentiment ki xumbay ki mbumbay ki xaliss bi ni dajale man teguma fofu loolu man limay nat natt nattukaay bi bok na ci mbolo mi ñi ngeen di mobiliser ki ci nattukaay bi la bok sen engagement ak seen pasteefu taxaw tem pour ñu gagner nattukaay yi ci la bok loolu ci limay nat ci ci limay may ci la bok sen xaliss yi ngeen dajale diko tek teg yëpp pour ñu mëna campagne bok na ci aussi ci limay naté na man nañu gagner loolu tamit day tàbbi ci ci natt bi waaye am na yeneen ak yeneen yo xamne dama koy en compte Moi élection 2019 les li Ousmane Sonko amoon dama koy jël élection 2020 22 yi li Yewwi Askan Wi amoon dama koy législative 2022 yi li Yewwi Askan Wi amoon dama koy élection présidentielle bii weesu barki le 24 mars bii li Diomaye am 54,28 pour cent virgule dama koy jël faram fàcce ko ñu am 54,28, pour 28 ñu chiffre boobu dañ ko war a étudier càmbar ko dugal ko ci biir nattukaay bi moo tax fi nit ñi nattee man du ma nattee foofu damay jël yu bari boole ko su ma ko boolee lan may jox ci laay sukkandiku xam ndax mën nañoo gañe ci bu gaaw wala gañe bu yeex wala gañe bu dëgër wala gañe boo xam ne day cëkk wala gañe boo xam ne day màbb ba mel ne géej lépp dañ koy calculer ci politique dañ koy natt 54 virgule 28 pour cent la ñu am moo fal Diomaye premier tour musta am na li yóbbu nit ñi ci eskay ji li ci bari nekkul cinquante quatre pour cent virgule vingt huit bi eskay ji mi ngi jóge ci premier tour bi moom moo fi musta am ci la ñëpp yéemoo ñëpp tàcc ñëpp kontaan ne ñëpp fëgg seen dënn jàpp ne def nañu ndam lu rëy ndam li nekkul ci score bi cinquante quatre virgule cinquante quatre pour cent virgule vingt huit ndam li nekkul foofu ndam li mi ngi ci premier tour bi dëgg la waaye bu ñu jëlee cinquante quatre pour cent bi ñu may premier tour bi. virgule 28 teg ko ci comptable bi càmbal ko dañuy xam ne ñun dañoo war a xeexaat dañoo war a jóg dañoo war a defaruwaat des na des na de des na de élection yi ñu jëm gañee guñu ko lu leer laa leen di wax gañee guñu ko te naa leen wax lu tax gañee guñu ko mën nañ ko gañe nag bu ñu àndee mobiliser wu def lu ñu war a def dañuy koy gagné à 70% alors 70% mais la wax 70% mais jamono bi gagné guñu ko bu len faté né bi fal jomay ci condition yi ñu ko coalition bu mak moko fal muy coalition jomay président coalition boobu ñu bari tabé nañ ci mais

Karim Wad bu ñëwoon Sénégal bokk ci ay élections yu 2024 yi bu ci bokkoon ak parti bi mu yore muy PDS nga xam ne am na implantation comme ni ko PS amee ak ñeneen ñoom donte PS dafa tas. parce que li ñuy wax ci PS mooy Khalifa Sall Aïssata Tall Sall ah, Aminata Mbengue Ndiaye ñoom PS gi tas yëpp bu ñu àndoon ñoom bu ñu àndee ñoom PS bu ñu àndee mën nañoo am minimum 5 wala 6 pour cent ñun ñëpp PS bu ñu àndoon mais dañoo tas politique non lañ koy manam manam manam manam élection dañ koy calculer dañuy def ay analyse PS buñu andon ñom man nañu am 6 7% PDS ak Karim Wade ni lu mu dé dé dé dé am 7 8% lu mu dee dee PDS bu ñu àndoon nasu nekk benn am benn candidat muy Karim Wade mu ñëw campagne lu mu dee dee mën naa am cinq 6 pour cent Karim Wade minimum laa wax ne xaw maximum minimum mën na ko am. kon Karim Wade moomu dafa àndoon ak ñun ci ñi fal jomaay ki la bokk waa PDS dañoo fal jomaay dañoo voté comme ñun pour ñu fal jomaay loolu bu ñu ko fàtte. waa PDS yooyu li ñu indil pour ñu mën a fal jomaay yéen ci li ngeen ko xayma. yéen ci seen xaymay bopp rek ci seen xalaatu bopp ñaata la war a toll ci ñoom li ñu indil ci fal gi ñu fal Diomaye 2024 nu mu war a toll ñu tàppate ko mu yaatu ñu tàppate ko yéen ñi may déglu Karim Wade joxe ndogal nen waa PDS gépp nañu voteel Bassirou Diomaye Faye xayma googu nu mu war a toll ci pourcentage lu mu dee dee dee dee dee dee dee ba dee waa PDS indil nañu cinq pour cent lu mu dee dee 5 pour cent waxtaan wax dëgg moo ci nekk nañu waxante dëgg tey wax ngir yàlla lu mu dee dee dee PD Karim PDS mën nañoo am 5 pour cent lu mu dee dee Khalifa Sall bi donc 5 pour cent la am te Khalifa boo génnee kenn xam ko PDS ngi fépp dafa implanté wu PS ngi fépp dañu implanté wu mais dañoo tas kon damaa jàpp ne man lu mu dee dee PDS war nañoo mën a apporter 5 pour cent. bu leen fàtte nous ñun ak PDS ñoo àndoon élection législative 2022 juillet ñu def intercoalition intercoalition nous avons ñu may 82 députés ñaatal député la wàllu Sénégal am ta bu ñu nee Sénégal PDS moo tax un député lañu amoon day leen xool chiffres yi di xool électorat bi def seen ay calcul politique science politique du ay émotion du affaire tàccoo ki fecce ki ay naagu da ngay def ay calcul jël ay statistiques def ay ratio loolu moy politique nga xamne so waxe li ngay wax dang koy meuna lay tek ko ci ay argument bañu defé intercoalition ben bi pasteur moko jité muy Ousmane Sonko yew bi benen bi wa PDS ñoko diriger muy Wallu bañ ko defé dañu am député yo xamne xaw nañ fa jëlé Macky Sall loolu li tekki moy li tekki moy wa PDS lu mu DDD am nañu 5 ba 10 pour moy deug parce que loolu ñom won nañ ñu ko bi ànd ak ñom ci intercoalition. ànd loolu nag parce que man damay calculer nit da ngay objectif bul complaisant maanaam bul nekk naafeq bul ànd ak Ousmane Sonko ba kee àndul ak Ousmane Sonko nga nga nga bañal ko li ko yàlla may nit du soxor. soxor baaxul nit du wax ci ay passion day wax ci xam-xam PDS lu mu dee dee dee dee bu demee élection moom képp mën naa am 5 pour cent lu mu dee dee c'est un grand parti bu fi nekk def fi presque 12 ans

te li may wax kenn du ko dindi Karim Wade su joxoon consigne de vote PDS ak ñi ànd ak ñoom mu ne leen votal leen Amadou Ba Amadou Ba du gagné du jàll premier tour mais ñun duñu gagné premier tour deuxième tour day am loolu mooy dëgg sans compter les Abdourahmane Diouf les Mimi Touré ñeneen ñi ñëw ñëpp ñooñu ñëpp boo leen daggee lu mu ba lu mu dee dee dee seen électorat bi nga xam ne ñoom indil nañ ñu ko. ñooñu coalition Diomaye am na ci ñu bari ñoo xam ne boo leen dagale yëpp lu mu dee dee man mën nañu am 2 3 pour cent xanaa lu mu dee dee ñoom boo leen boole yëpp mën nañu am 2 3 pour cent nga boole kook 5 pour cent bu PDS bu Karim Wade loolu bu génnoon ci suñu élection yi passé Diomaye du falu premier tour. du li ma leen wax du dañ. kon ñooñu buñ leen sous-estimer lan lay tekki li muy tekki mooy ñun patriotes yi dañoo war a gën a làbbali fas wi li may wax dama koy wax pour ngeen xam ne fas wi dañ koo war a gën a làbbali dañoo war a gën a takk jóg bu ñu naagu parce que Diomaye gañe na 54 pour cent yoo xam ne 54 pour cent yi du Pastef kese coalition Diomaye la ñu bari tàbbi ci ki ci gën a fës am ci doole muy PDS bu àndoon ak Amadou Ba luy xew. bi élection yi génnee cinq man dama leen wax il faut ñu am entre cinquante quatre pour cent et soixante cinq pour cent man loolu moo nekkoon samay statistique laayit naa ci yéen ñi may topp xam ngeen ko cinquante quatre pour cent minimum ba moo génn cinquante quatre pour cent bi moo nekkoon sama base c'était le minimum le maximum soixante cinq pour cent man loolu moo nekkoon sama fourchette base bi moo ñëw cinquante quatre pour cent ak Karim Wade loolu lii ma su ma koy wax pour ngeen bañ a naagu moo tax ma koy wax pour ngeen xam ne dañoo war a xeex dañoo war a futteeku dañoo war a mobiliser wu dañoo war a yokk ñeex ci cere ji moo tax ma di leen ko wax pour ngeen xam ko bañ a naagu parce am na ñoo xam ne comme gagné nañu 54 pour cent ak Diomaye dañuy gagné waat fii yi bokkul Macky Sall lii la xam lii ma leen wax ni ñoom dañ koo calculer Macky Sall ak ak ñoom Idrissa dañoo toog jël résultat yëpp calculer ko xool combinaison yi Ousmane Sonko yeew yi wàllu wallu coalition Diomaye ñu calculer yépp gis né buñu défé ay combinaison mën nañu am lii lolu motax ñom ñu def sen coalition ak seen intercoalition comme ni ñu ko défé won 2022 dañuy calculer ñom ñaga and dagalé dagale 35 Amadou Ba ñaata la amoon ñaata la Amadou Ba amon Benno Bokk Yaakaar kanda lu mu amoon ci élection yi faté ngeen ko bu leen ko fàtte li Amadou Ba amoon score Amadou Ba ñaata la woon benn bokk yaakaar fàtte ngeen ko fàtte ngeen ko 34 pour cent la amoon benn bokk yaakaar boo ci dugalee cinq pour cent wu Karim Wade day nekk 39 pour cent 5 pour cent yi Karim jox Diomaye boo ko génne woon day nekk 39 pour cent Diomaye des a ñaata.

léegi Macky Sall Karim loolu la xam Karim am nga cinq cinq pour cent lu mu dee dee minimum bi ah na ko ëpp kaa ñu ànd ci législative yi ma indi sama cinq pour cent ak sa 5 pour cent muy 40 pour cent ñun noonu lañ calculer ah def encore intercoalition ñu dugal ay ñoom 1 pour cent fii 2 pour ñoom xalifa bi am xalifa na 3 pour cent yooyu yëpp njël ko boole ko taxaw attention ànd ñu ci ay yeewu rek ànd ah, dañoo jël dañoo jël statistiques yi ñoom dañoo jël chiffres yi def ay calcul ci chiffres yi ñun dañoo amone coalition Diomaye président Karim a ngi ci biir ñëpp a ngi ci biir ñoo fal 54 Ousmane Sonko ñew ne man déwuma ci coalition ci Pastef côte la démé coalition ba amone Ousmane dako tass Karim Ba dem na Ousmane ne ci Pastef la démé attention défi le challenge bu maga a mag mag

bëgguñoo dégg lu leen arrangé wul dañoo tàmm lu leen neex ak lu leen arrangé ba boo leen waxee lu scientifique dañuy lànk man chiffre yi may joxe fii inventé wu ma ko chiffre yu génn jaay élection la ma da ci def sama ay calcul def ci sama base da ci wax scientifiquement am ñu ne déedéet wala ñoo basé wu chiffre yooyu léegi ci yenn chiffre la ñu basé wu damay laaj ci yenn chiffre lañu war a taxaw xam nga élection passée dafa bari sàcc ana ñaata lañ sàcc ana sàcc bi ñaata la xam nga loolu du ay chiffre. xam dans la vie il faut avoir un esprit cartésien scientifique man niwuma sàcc amul de mais man su calculer scientifiquement du ma jël ay au données j'ai pas des données sur le vol dañoo sàcc loolu sa xalaat la capé loolu yaa ko xalaat mënoo prouver il faut ngeen am des esprits cartésiens mënu tek ay chiffres yu leer yu officiel ma di ci def ay calcul nga ne ma non chiffres yu taxawul parce que dafa am sàcc sàcc bi yow mën koo prouver prouver ko ana chiffres yi il faut pas qu'on raisonne comme ça il faut qu'on ait l'habitude d'être des scientifiques nañu bàyyi loolu c'est pas comme ça on ne calcule pas comme ça oui dañu sàcc Macky dafa sàcc naka la sàccee ne ma sàccul li nga wax xëy na wax nga dëgg mais prouve le moi ma koy prouver mënoo ko prouver donc comment nous prouver en compte si def ay calcul calculs, ci dugal lu aléatoire loo xam leeru la vous ci passion doo ci Ils ay yëg-yëg des ci avez ay wax di dañu vous dañ ko ñun dañu jël concret di ci basé wu ba gis lu koy dindi scientifique Quelles données de base êtes-vous sûr que les données de base sont fiables Quelles données de base Mohamed Diop, il y a une donnée de base. C'est une bonne question, mais données de base, lesquelles Il y en a beaucoup. Mais ce n'est c'est pas clair quoi. Chiffres fiables, capé. Mais n'est pas des chiffres fiables. Quel, tu parles de quel chiffre Capé. Avec Mohamed Diop, vous parlez de base fiable, de chiffres fiables. Quel chiffre vous parlez Hein Vous parlez de quel chiffre Hein? C'est vrai, Imam, les chiffres des dernières élections. Les chiffres des dernières élections, on est fiable. Capé. C'est pas fiable. Wale, quand de veux wax Jomai, kon dañ ko fal frauduleusement kon il n'est pas élu fait que les chiffre les élections présidentielle 2024 c'est pas fiable kon Diomaye liñ ko c'est pas fiable Mohamed Diop nee les 54,28% ne reflète pas la réalité Mohamed Diop donne-moi la réalité Il yu de yow xam nga réalité bi man xawma man li xam moy 54,28% mo ne c'est pas la réalité Mohamed Diop donne-moi la réalité non mais capé, bàyyi leen nag sa ay l'élection n'a pas été transparente yow si l'élection n'est pas transparente donc il faut refaire l'élection donc Diomaye dañ ko war a li defat ay élection kon Diomaye falul kon Diomaye nim mu baxul yeen vous remettez même en cause l'élection de Bassirou Diomaye Faye ce que vous êtes en train de faire est extrêmement grave vous travaillez pour qui finalement non mais attends yeen Diomaye ni falu ba jël ay décret fal Sonko ngén na Diomaye liñ ko falé c'est pas fiable c'est une fraude kon Diomaye dafa war a kon li ngeen bëgg wax mais ce que vous êtes en train de dire est grave vous êtes en train de remettre en cause la légitimité de Diomaye Faye et celle de Ousmane Sonko non mais par Diomaye. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire Et vous le dites sans chiffres, sans raison, sans démonstration, sans argument, rien du tout. Vous vous rendez compte Non mais Mohamed Diop, c'est pas du tout ça. Moi, je veux savoir c'est quoi. Ligue wax rek répéter. yow yay bind man waxuma ne ligue wax li wax yow ya ne 54 ça ne reflète pas la réalité Mais ne c'est quoi la réalité vous le mettez en cause choses de Bassirou Diomaye fait, c'est grave. Non, mais c'est pas dans ce sens que je le dis. Mais non, attendez là, vous me tournez en rond depuis tout à l'heure. Si vous m'avez ne c'est pas dans ce sens. Non, attendez, restons dans les chiffres. Que chiffres, pour dire, c'est pas fiable. Ça, c'est votre point de vue, vous. Mais c'est pas le point de vue de Diama et de Sonko. Nous fallu nañu. Nous, Diomaye et Sonko, nous, décret, ils signé mais tu ci 54% quatre il cent virgule vingt ne non c'est pas fiable mais il faut ko teg mën nañ démontrer vous remettez en cause la légitimité de Bassi Diomaye Faye c'est grave voilà une très bonne question user Mais si les chiffres ne sont pas fiables donc la victoire de Diomaye est en question point d'interrogation vous êtes en train de mais attendez là ce que vous êtes en train de faire c'est extrêmement grave hein, Mohamed Diop non, mais attends, bon, j'avance. Mohamed Diop, quand tu dis la réalité est que Diomaye avait plus de 54% Mohamed Diop, vous êtes dans les émotions. Vous n'êtes pas dans la science. OK Moi, j'aurais bien aimé Ganamo Diomaye à 60%. Voilà les chiffres. Voilà les résultats. Voilà la vérité. Tu n'es pas capable de me le dire. Mais attends, bon, on avance. Bref. L'immobilier de 54%, 28%, fal Diomaye officiellement ci la prêté serment fal ci Ousmane Sonko premier ministre 54 pour cent yooyu li ma wóor man ma xam ko mooy Karim Wade ak ñi mu àndal mën nañoo am 5 pour cent soo ko ci dindi woon daañu gagné premier tour bi dañuy bokk dañuy qualifié pour dem second tour élection Diomaye Faye du am premier tour second tour lañ koy lañ koy élire loolu loolu kenn du ko dindi loolu kenn du ko dindi léegi nag base boobu su amee ma xam ko ngeen xam ko ñun ñëpp ñu xam ko lan moo war a nekk suñu taxawaay ci élection yu njëgam yu dëg ma li may wax yëpp dama koy wax pour fi ñu jëm ak taxawaay bi ñu ci war a am moo tax ma leen di wax lii parce que lii ma leen wax nii déggu ko ci benn tele ku nekk ngi wax ñëpp génn nañ ba ñu falee Diomaye ba léegi ku nekk di wax mais Diomaye ak Sonko dañuy tëju jël seen ay science politologue jël ay seen institut de sondage jël ay statisticiens def seen i calcul def ay ratio xool dugal génne politique loolu la du toog ci réseau yi di wax rek war nañoo xam ne ñoom suñu amul woon apport Karim Wade bi xuloog Amadou Ba ba jox ñu 5 minimum dama ko sous-estimé man na ko ëpp minimum PDS la dafa am tentacule dans ce pays de par la combativité de devoir pendant tant temps d'opposants ñëpp xam ko ci réew mi mu bàyyi fi parti boo xam ne donte parti bi doole ji wàññeeku na ndax doom ji nekku fi waaye dé dé dé dé dé dé dee dee dee dee bi ñu defee intercoalition ak ñoom ñoom wàllu gis ngeen nombre de députés bi am ci assemblée ce sont des chiffres la politique c'est pas des visions de l'esprit ce sont des chiffres ce sont les cartes qui parlent ce sont des élections kon liñ ci jàngat mais li nga fi jàngat mooy bon Mouhamed Diop man par naa ci yow li ngay wax yëpp c'est aléatoire xam nga tu ne fais que des supputations moi je ne suis pas dans les moi je des chiffres je ne suppute pas j'avance kon liñ ci war a jàngat mooy dañoo war a takku parce que

waaye dabu nañu sax loolu def intercoalition seen intercoalition boobu nag mën naa am du jàll intercoalition bi mën naa am du jàll mooy ñun suñu intercoalition bari na ci ñoo xam ne département yi nga xamne dañu waxone voter walu ñu ci bari dañu walu dañu voter yeewi fi ñu waroon a voté ñu bari ñu voter walu am nañu ay vote yo xamne dañ ko perte bu ngeen xolé fu mel ne Mbour ak Louga waroon nañ ko gagné ñun on avait la majorité mais erreur de vote ci département yi moom loolu tamit problème mu intercoalition la dañu def coalition def inter intercoalition donc loolu mën na am conséquence ñom mais ñom ñi ma lay wax ni Amadou Ba Macky Sall Karim Wade ñom ñi andé ne bu ñu àndoon def ben liste ci lay gën compliquer ci ñun. parce que boo waxee ñu oui électorat bi fal jomaay mënu fee soppiku fi ak 6 mois yi wessu loolu loolu la wax loolu ngeen wax mais électorat bi àndoon ak Amadou Ba ànd ak Macky Sall ànd ak euh, Karim Wade ñoom tamit duñu soppiku le même électorat d'un côté comme de l'autre reste un électorat figé te ñi àndoon ak jomaay da ci am ñoo xam ne Karim wad la andal légui bu Karim joggé fofu mu dem fekki ñee

li nga xam dañuy gagné da nga koo démontrer ba xam nañuy gagné c'est ça la politique. Manam, man dama nekk di leen démontrer à travers des chiffres you may déplacer di génne fi di dugal fee di jël ay statistiques di dugal fii di génne fee di yëkkati ki génne ko fii dugal ko fee di leen wax lu leer li ngeen may wax yëpp yéen tegu leen ci sama loxo bi dara ay perception de l'esprit ngeen am diko tek sama loxo c'est pas pareil ay xalaat rek ngeen am yéen diko wax kon li ngeen wara jang ci limay wax moy ngeen am un esprit scientifique am une honnêteté intellectuelle bu intrinsèque bu len mën a may ngeen déglu ma bu baax ta considérer limay wax pas comme étant lo xamné euh daf day nekk loo xam ne dañ koy forcer mais ngeen ko de par la scientificité de l'argumentaire ngeen accepté ko ba noppi adopter ay posture adopter ay stratégie pour que ñu mën a gagner c'est ça le but tali tax ma ko def ñu bari dañu am dañuy gagne dañuy nagu mais ñi ma koy wax ñëpp suma leen nu ñuy mënu ñu mako démontrer kenn mënu ma démontrer nu ñuy gañee kenn amu ci kenn ku ma taxaw scientifiquement ne voilà comment on gagne en fonction de l'électorat X de tel département tel département de telle élection telle élection des changements de camp de Karim Wade qui sort et de tel qui arrive de Déthié qui arrive parce que quand on fait des coalitions c'est pour additionner les, les, les popularités. On, quand on est ensemble, c'est pour additionner nos forces. Quelle est la popularité de, de, de, de, de, de, de, de Abipsi, de, de Cheikh Tidiane Dieye, de ñoom ñëpp ñu ngi ci biir ah. boo jëlee bu Abipsi bu Cheikh Tidiane bu euh, Abdourahmane Diouf ñëpp c'est vrai que dañuy ñëw dolli ko ci parce que léegi ñu ngi ci coalition bi Cheikh Tidiane Dieye lu mu amoon Abipsi lu Amon,

Oui, ils ont apporté que des poussières. Oui, c'est normal, mais c'est cette poussière-là qui nous a permis d'avoir, de gagner au premier tour. Ils nous ont apporté que de la poussière, oui, mais c'est avec cette poussière-là que nous avons obtenu 54%. Oui. Abdurrahman Diouf était candidat. Ah, Cheikh Gay était candidat. Adipsi était candidat, si je ne me trompe pas. Voilà. Boubacar Kamara aussi. Voilà où regardez. calcul yi ngeen calculer def Khalat yi ngeen war def foofu ngeen ko war def ay calcul def ay ratio gain de khol. quelles sont nos chances d'avoir une majorité qualifiée Moi, composition liste Pastef bien, deuxième élément bi nga en compte c'est nga territoire en fonction des poids démographiques des poids en termes d'électorat des poids en termes de nombre de députés yi génn ci ville yu mag train est-ce y a une chance pour gagner la liste départementale la passée. liste de gàddu yi élection législative passée passée. 31 juillet 2022 un département qui Macky Sall gagné Benno Bokk Yaakaar yan département la gañe département est-ce que mën nañ ko la là deux ans après entre-temps élection présidentielle am na fi Diomaye ñaata département la gañe ci département yooyu département yi mu gañe ci élection locale yi ci législative yi ndax am na ndax dafa maintenir yëpp wala dafa am yum ci ñàkk voilà les calculs qu'il faut faire département par département non l'électorat de Pastef 54 pour Pastef moo ci ëpp Pastef Quand Pastef man quantifié ou ma électorat ba léegi mënu quantifier mais moo ci ëpp doole mais comme Pastef moom moo falu te moom la ñu war mais Pastef amul 54 pour Pastef amee 54 pour cent loolu kon PDS apporté lu ñu dara alliés yi nekk ci biir Pastef yëpp indi lu ñu Pastef dara loolu ngeen bëgg a wax da ngeen bëgg wax 54 pour cent bi Pastef kese moo ko moo indi. loolu ngeen bëgg a wax mais loolu mënut a nekk c'est pas scientifique donc man kay xam naa ne Pastef moo ci ëpp doole mais mënuma quantifier électorat de Pastef donte xam naa ne am na doole mais lu mu am am doole Pastef kese kese kese kese kese fal Diomaye au premier tour su ma xoolee 54 pour cent yi disséqué ko jox Karim Wade wàllam jox benn benn yi ki nekk kenn ku nekk ay 0 virgule du ñu am 50 pour cent pour jàll premier tour. loolu loolu yéen da ngeen ko weddi mais weddi wu ma ne Pastef am na doole mais doole bi mayu ko mu gagné premier tour loolu Ousmane war na ko xam Diomaye war na ko xam yéen dama bëgg ngeen xam ko te su ngeen ko xamee li ma bëgg mooy ngeen takku jóg xam ne doole bi ngeen jàpp ne am nañ ko fi ba dañuy gagné mu yomb yomb lettre à la poste doole boobu nekk gu fi pour ngeen jóg taxaw takk seen ndigg moo tax may wax loolu xam nga man lii ma leen wax waxuma leen ko pour ngeen découragé waxuma leen ko pour ngeen pessimiste waxuma leen ko pour ngeen may tontu man dama leen wax lu leen kenn dul wax